Euh, fi ñuy jeexalee coow li bi euh, euh, nga xamante ni ñu bëri dañ ko ŋaawte honorable ni muy taxawee dafay jàppale peut-être dafay jàppal tànk wàllum góor jigéen ñi ni muy waxee peut-être dalu xel est-ce que coow loolu yëpp mënu laa yàqal ci sa dagaan bi ngay dagaan ba askan wi. coow li fan la jóge coow li fan la jóge daaj naa la ko. non ban organe de presse moo ko génne. xalaat TV. Mm-hmm. kan moom moom xalaat TV. xam nga Guédiawaye info xam naa ko ko moom. Mm-hmm. ñëw naa ba fii. Mm-hmm. mais wan wax ma yow fan la xalaat TV nekk kenn mënu la wax fan la xalaat TV nekk. Mm-hmm. xam nga tey yow boo ma waxoon dara nga tooñ ma. mën naa la ñëw fekk fii Guédiawaye info. ma démentir wala ma wax la ne lii waxuma ko xalaat TV mooy seen boo xam ne mënoo xam fan la ñu nekk xamoo kan moo ko moom yéen ci seen bopp en tant que euh, journaliste yéen yaa leen ko war a bañ nit xëy. génne information bo xamné dara du ci deug ba paré amul benn source d'information bo xamné warna war na la ko mëna yo sukkandiku nga ne ki parce que bo waxé source d'information bo xamné yo wonna la né li nga wax dëgg la ngay laxatu man laxatuuma ba ngeen ma wo jot ngeen ma ma ngi ni tok sa kanam lamay wax man dama koy wax fi mu tok khalat TV li ñu wax dara du ci deug ay fen la bind Cheikh Omar Diagne mi wax confronté naa ko moom ak Babacar euh, Babacar euh, Mbuub mi jiite miy jiite kii. Euh, sàmm jikko yi ñoom ñëpp dellu nañu ginnaaw ci li ñu wax man leen li ngeen wax musul am li ñu bind amul boo demee ci site bi ñu tudd PGA doo fa gis suñu tur. ay fenni neen la. parce que nag man damaa bokk ci këru diine muy kër Cheikh Omar Foutiyou ba may défendre. contre l'homosexualité en 2012 2017 assemblée nationale xaaruma ci Cheikh Oumar Diagne xaaruma ci Babacar Mbuub xaaruma ci kenn sama ax ak yelleef ak sama diggante ak sama boroom laa ko defee xalaat TV ba ñu génnee loolu lu jour même ñu wooma ma bind seen site ne li ñuy wax amul du dëgg jox leen ay firnde ne du dëgg dañoo supprimer li ma bind tey li tax porté wu ma leen prene rek dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo ci téye mais yow nga ne déjà dañu ne ñun dañu dem Nations Unies pour défendre ko du deug man musuma voyager ak ak ak Moustapha Niass cinq ans yima nek assemblée nationale musuma voyager ak Moustapha Niass musuñoo def délégation bu dem Nations Unies pour défendre lool ben ñaar PGA Dakar la ñëw PGA dafa mësa bokk assemblée nationale avant même douzième législature bi Moustapha Niass bokkul PGA.

ànd ceeg Mamadou Lamine cham moo fi indi en tant que point focal mu invité ay parlementaires ñu bokk ci kuréelu armes légères yoy bañ ci discuter circulation bi ci ay ay ay ci affaire de guerre lañ doon wax ba ñu ñu def sen renouvellement de bureau ñu invité président Moustapha Niass mu ñëw mu ñëw jité ko ñu jox ko prix sur la démocratie depuis quand prix sur la démocratie dañ koy mengo ak ak affaire góor jigéen mm-hmm. Moustapha Niass bok ci niñ fa tuddu ñep ñaar ñoo bok PGE Jibril Djibril War ak Mamoud Lamine Thiam. Hmm. te ñooñu bu ñu fa bokké assemblée nationale mo leen désigner, hmm. mais lolu du deug ay fenn la. d'accord loolu moom. Hmm. xam nga nak nit boy wax ay information te lolu presse bi la koy wax il faut ngeen dem jëli source bi. ngeen xam yow fi nga tok ni laaj ma question bi yow wóor na la yow xamoo sax xalaat TV kan m'oko mom kan moy bind kan mo nekk ci ginnaw xamoo ko tamit yow mën naa man mun bu ma nee info. bu mu waxee yeneen ak organ de presse yi mën naa leen gis xëy nañ fi nee ne pétrole ak gaz bi ñu ngi koy ŋàcce di ko yóbbu mais ay fen yi neen la fet pétrole ak gaz naka lañ koy ŋàccee benn bato taxaw rek jël pétrole bi dem loolu dañuy wax sénégale yi tamit lu mën a yelloo maanaa parce que nit nga gis nga nit danga nga am responsabilité yee sa askan mais bu leen dofloo ci ay wax yoo xam ne amul benn argument d'accord man mhm. Cheikh Oumar Foutiyou laa Cheikh Oumar Sy laa tudd bokk ci jabootu Thierno Mountaga sama maam di Cheikh Oumar Foutiyou la mu fi xeex du ko waxaat am na ay caaxaan yoo xam ne man du ci dugg ba may xeex contre l'homosexualité xaaruma ci xalaat TV xaaruma ci Cheikh Omar Diagne xaaruma ci sàmm sàmm jikko yii di wax. Mm. Babacar Mboub man maa ko facilité waxtaan boobu ak Thierno Madani Tall ne leen nii lii moo leen tax a jóg bu ñëwee nga jàppale leen man naka lay dem di wax kilifa gu mel noonu jàppale contre l'homosexualité di dem di dugg ci ay feeru caaxaan. d'accord loolu tamit mm. aw lu ma ci tiit ku ma ku ma woo téléphone. Mm. ku nekk woon na ma téléphone laaj moom moo wax la li mu ci bañ ci baala am na ñoo xam ne dañ moo baalu ma aax d'accord parce que nag nit booy wax da ngay sóoraale sa bàmmeel pour ëllëg